asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina ñoo leen ko digoon indi nañ ko seen émission sama star sama star di émission bi leen si suñu TV di jagleel di dem ci star yi wan leen yéen ñi nga xamante ne seen star dañoo nëbb ñu làq woon ñu génneel leen ko indil leen ko tey nag ki ñuy dalal ci sama star mooy suñu yaay Mère Ndiaye bi Ndeye Asta Fall ñu gën ko xam ci Mère Ndiaye bi dama koy nuyu rek daal di koy poser sama question yéen ñi nga xamante ni yéen la nekk seen star ngeen daal di xam ci moom lu bari asalaamaaleykum yaay bay maa ngi lay nuyu. maaleykum salaam sama doom maa ngi lay yaay bëy su ma doon laaj tey kan mooy Ndeye Asta Fall mère Ndiaby la may tontu. waaw man nag boo ma laa Ndeye Asta Fall mère Ndiaby maa wax Ndiaby allah baal loola coomo ci doo fa maa bëri bëri koy. <laughs> loolu rëy na yaay bëy yaay mën naa xam kañ nga dugg ci musique. waaw musique nag dama judd rek taasu dama judd taasu daanaa woy nag di woyantu mais taasu moom dama ko xool rek te ko paasam. est-ce que da nga bokk ci famille bi woy wala nu mu demee noonu. waaw xam nga nag askan géwél moom. boo ko doonul ci yaay doon na ko ci papa doon na ko ci maam ndax woy moom sunu mbaax la boo nee ngi wér rek ni woy ñu ñu ñu bëgg a xam yaay ban année nga commencé dugg ci musique ban année la la affaire bi gën a gën dugg daal taasu mi dugg la nga ne man daal il faut ma jóg pour Sénégal xam kan mooy Mère Ndiaby. non man nag bi may xale laa judd taasu mais nag ma continuer ko di ci dem di ci dem di ci dem ba mu yàgg ah ma xam nag ni ma fës jot na. ma wax jot na àdduna dégg ma jot na ma daal di nag nii nag naa wone sama bopp wane sama bopp nag macha allah te bi ma wanee sama bopp nag gis ma ci benn gàllankoor. yaay booy gisoo ci benn gàllankoor ndax de euh, single yi nga génnee xam naa jotut bari waaye toj na àddina. non man nag génne naa single yu bari de mhm. génne naa single yu bari ndax njaabi laa jëkk a woy Alabado la mu dikk doon coupe du monde. boobu promo dootuma ko amaat. sa digganteeg waa Njaabi lan la. non sama digganteeg waa bi nag jullit suba la de ñaar rakk yi dañ koy biral ci des dañ koy yàlla <laughs> ñooñu res lañ ci man ku leen dagg ma naaj ñoom yàlla moo ma booleel ñoom xam nga yàlla mooy seet ay nit mu boole ak ñoom parce que ca maam maamaat maamaat ba fii nu toog man rek may géwél bi ñu naan bi Njaabi bi seen dëkk la ma woy leen ñuy ay laal yokku nag ñooñu sama digganteeg ñoom. sëb la la ko bënn nga ci biir yàlla moo boole ñoom ñu fonk ma nag am fu ma teg dem naa ba sama diggante ak ñoom sax léegi ay doomu ndey la bu nu amee bis su ma gisul dañuy mer bu nu amee bis su ma guddee ñëw dañuy mer bu ñu sañoon bu ñu amee bis suba teel laa fay ñëw lu ñu may man lañ koy may teg ma ci seen biir géew di ma teral si xag man jàmm seeni doom bëgg ma mu sagal ma sama diggante ñoom daal lu yàlla def la. lu yàlla def la jàmm ni ci dara waaye bëggoon naa xam yaay booy yow da ngay tëgg ay soirée wala nu muy demee affaire bi. waa man nag dinaa tëgg ay ngénte mais soirée nag tëgg gu ko xanaa yi may tëgg Sorano tëggoon naa Sorano 2017 tey maa ngi demaat Sorano le 4 janvier 2019. le 4 janvier. noo koy pare préparé. loolu la 4 janvier moom rëkkante lay doon ku njëkk a bàyyi yaay doon tàppet. loolu la 4 janvier. kon ko amul ginnaaw dafa dem. ku bëgg dégg lu bees tàq lu kenn mës ko dégg ci nopp nag ma fekk la 4 janvier Sorano parce que nag li may liggéey dama ko def ci sama xel def ko ci sama bopp te fan yi boo xoolee réseaux sociaux yi ni mel xool morceau boobu ma defoon. Ndeye Asta loo gëj a gis maanaam ndaw xool xale yu ndaw yi may toppandoo fim mu dugal ko ci internet bi Ndeye Asta Fall loo gëj a gis ñu naan ndaw xale yu ndaw yi ko xamul di laajte naan lan mooy ndaw ñu ne xale bu téye boppam loolu dana yokk xale yi jom. dinaa ci ñëw yaay bëy Ndeye Asta Fall loo bëgg a gis mu ne ndaw dama lay laaj rek tuuti lan moo la poussé ci nga way loolu. waa xam nga nag dañ daan fekke loolu parce que kuy xale bëgg nga sagal sa yaay. loolu ba mu daan am dañ daan làng laabaan ci buntu kër gi baas woo sabarkat yi tëggkatu sabar yi kër Cheikh Maam Cheikh Fatma njaay wala Weeseng Fay wala ñu woo lat ko du ñing ah wala ñu woo waa kër du Ndiaye Roos ah, la tëggkatu sabar yi ñëw mu tëgg laabaan yéen loolu laabaan sa yaay wax armuwaalam ay mbokkam wax seeni armuwaal koñ bi bu ñuy dem ñun laabaankat yi ay ëmb lañu yenu koñ bi ku ne génne sa mbubb ndax ñun dañuy taxaw naa yaay ji wodduma ca ndaw gi ndaw gi sa ndaw sa doomu ndey yi loolu la ñuy wax dugg ci koñ bi ñëw ñu génn da ngay gis ko jikki ba càgg mu ni ci ëmbam ku ne mu jox la mbubb ñu yanu ñu dañ daan dem ba du ñu xotti mbubb ci laabaan la amee ay yére. ci laabaan ngeen daan amee ay yére mu mel ni kon laabaan googu ngay wax dafa réer léegi moo tax su ma la déggee moo tax nga way way bi. waaw mais léegi nag dafay ñëw laabaan dina dellu siwaat. dina dellu ko dellu siwaat ndax damay tourné clip bi damay may ba ma wax ak xale yu jigéen yi nañu téye seen bopp ndax maman Ndeye sa nee na mi ngi ñëwaat ci laabaan te fexe leen ñu laabaan mu ñëw laabaanal leen ba mu neex. xam um, nga dañ ko xewi xewi lool dégg naa kilifa yi naan loolu jërte siiwal waaye li ngay siiwal ba mu defar àdduna ba yokk nit ñi jom ba xale yi xam seen bopp xam nga bi woy jeexee la wuyu am bi fi woy jógee ci la wuyu am bi ñu daan tëgg laabaan koñ bi tey xarit yi ànd. wala xale yu jigéen yeeg ñu ndaw ñu nekk ci koñ bi ñu tëral benn xale ay njëkkeem indi ko indi seeni sabar ñu jël mbalaan mi teg ko ci layu jël xarum ndàmpaay mi jiital daal di jël ngegenaay li teppal ko sa jaam ñuy fecc indi la ñu tëral la ñuy sa bàjjen di la dàmp loolu lañ ñaan sa bàjjen di la dàmp sa yaay di ree laabaan ji neex ñuy laabaan géwél yi woy ñuy maye yére yi xale bi dëkk ci koñ bi day bëgg ñu defal ko loolu ba tax day sàmm boppam mais loolu réer na mër kenn gisatu ko looloo waral xale yi léegi lu leen neex ñu def léegi dama ko bëgg a dellu si waat laa baan amaat tëral sa doom daal di may woo woo naata mbaay woo ajara mbay bu kees woo ndey Maguette sàmb noonu lañ daan def woo Ayda Njaay Tuubaa yaayu njole yaa ngi dégg woo Binta Mbay da daan laabaan léegi mag la doomam a ngi fi yaa ngi dégg ma ñu woo ñu ñun laabaan kat yëpp ñu dikk toog ñu tànt laabaan daal lañ bëgg a dellu siwaat te dinañ ko delloosiwaat. Mère Ndiaye nee na mi ngi ñëw dina delloosiwaat laawaan foofu laay jaaree rek daal di lay laaj sama question bi Mère Ndiaye le 4 janvier est-ce que yaa ngi ciy préparé ak yeneen artistes yoo xam ne ñoom nga nar a bokkal def euh, benn euh, affaire bu bu bu tukkal àddina. waaw parce que moso laabaan bi ma lay wax man nag taasukat yi association taasukat yi ñoom laa koy bokkal parce que dañuy tëgg laabaan ci biir. kon su ma la déggee yéen da ngeen a am benn association boo xam ne yéen taasukat yi yéen a ñu am bu mag. am président am vice président am porte parole man maay porte parole naata mbaay mooy vice président bi ajot bu naata mbaay ndeel a xalaas mooy suñ président ñu ñu ñu ñu dëgër nag ñu am doole nag ñun bu dara xewee ci réew mi su dara xewee ci réew mi dañuy teg morso jàmm bi ñu def ndax ñun def nañu morso jàmm def nañu ko bu dara xewee ci réew mi dañ koy teg ndax ñu jàmm rek la ñu wax. kon daal su ma la déggee li ñu naan woy bu buy bu yarul diglewul du ay woy ay fola ay fola ay fola te xam nga tey am na xale yu ndaw yoo xam ne boo leen yeewoon tey ñu am 13 ans nga leen lan mooy xaxar ñoom saaga rek la sax mère Ndiaye bi mais boo demee ci ciit yeeg yi ñii ñi di xaxar man en loolu léegi laay gis ñu loolu laa gën a remarqué ay saaga la ñuy def yéen seen temps nan ngeen doon xaxaree. ñun sunu temps daawunu la saaga. duñ la xas duñ la saaga duñ wax lu bon comme ça tey dañuy dëpp suñuy bool naa xaxari jeeg jeeg ak wàllu leen seen moromi jeeg ñu naan jeeg wi ñu naan ndaw si lu la tax a fuuy waaye yow doon ñu ràkkal ñaari xarit te jax nga dikk ne dung xam naa boo fi lekkeen soos sax gën fi ne dung ay wax yooyu ñu wax du doon saaga mais léegi xaxar ak yooyu li manqué woon daal lañu bëgg delloo si waat parce nag sunu aada dañ ko wëral delloo si waat mais dafa réer gisatuñu ko li réer nag lañ bëgg a indi. li réer la bëgg a indi. xaxar ak laabaale. day ñëw xam naa ne ak yéen rek dina ñëw mais dinañu ñëw ci le le 4 bi nga wax sa ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan sa fans yi ñiy xaar le nga wax leen ci. waa léegi nag man sama fans yi xam nga man du ma ni sama fans yi dama naa sama fans yépp hmm. ndax man àdduna monde entier xol boo xar da nga ciy fekk mère Ndiaby koo wax mu ne man mère Ndiaby ma saf koo wax mu ne man damaa bëgg mère Ndiaby koo wax mu ne man daal mère Ndiaby ma neex léegi nag mère Ndiaby seen mère Ndiaby la le 4 janvier la Sorano bëgg naa ñëpp fekk si ma Sorano na musóor yi jóg na rosa yi saf na pastel yi saf na ngeen may këpp xolal te teel a ñëw nag ma toj foofa rek nun ñëpp nu àndeem ñibbi su ko defee rek ma indi beeco ngalaama nijaay asan déggal li ak yow yaay booy mooy sa diggante sa relation ak artistes yu góor yi ak yu jigéen yi seen relation laa bëggoon xam nan lay demee. ah loolu yow nag laaj nga ma lu ma neex na mm-hmm. parce que artistes yu góor yi ak yu jigéen ñee yam dama dañuy def référendum yu sundu rooma mu ni dafa bëgg ma defal ko benn son ci référendum bi léegi bi mu génnee fekk ma ma toog mu ni njaabi ak a dégg. man daal njaay bi foo nekkoon rek nga kon kooku sentir na ma sama doom ji faramaare ni daf ma nuyoog moom ko pare bi ak dégg rek dégg yi sax dañ may sentir Pape noonu la mel man su ma bëggee lim damay tuub man Alsaan Mbay ngir yoo di VIP moo ma yóbbu Makka may ma terrain titre foncier sama rakk la xam nga kon kooku aw ma ci noonu. maa ngi dégloo sax yaa ngi koy woy. waaw maa ngi koy woy ndax sama sang la ah, artistes yi góor yi aw ma ci kenn xar ma yàlla ba pare ñëpp a may sentir ba pare ñëpp a ma jox cër su ma dugg see dañ naan mer Ndiabé ngoog yuy jigéen yi nii ci xam ni ay xale lañu samay doom lañu samay doom la ñu la daal ñoom xale yu ndaw yi fecckat yi. ñun ñëpp samay doom lañu ma di ci profité di ñaanal sama benn rakk sama doom yal na ko yàlla xare àjjana yal na yàlla yokk leeram ci àjjana jël na rëcc lu mu doon def àdduna muy ndey jàlloo mm-hmm. léegi la nga wax téléphone dama ko ni maa ñëw léegi ñu ràcc fi mu kenn daaw bi géej bi koy def bi ma xoolee caméra bi sama xol bi day jeex damay booy sama bàjjen soxna mm-hmm. ndox di di ci dënn pare wàcc boppam naa ko drapeau bi di wër ci biir pour ma soulager ak Fantale Ndiaye yal na xeppee àjjana fa ko fekkoon mm-hmm. day bay jinne jinne mm-hmm. jaal mbaay Euh, daaro mbay moom daf maa bëgg barki démb bëri la ma tànk ca kaw li ma yaa ngi waaj ma ne ko amoon na nga sa xol bi la la yàlla lay fay. Mm-hmm. artistes yu mag yi ak yu ndaw yi xale yi taasu ñu Ngoné Ndiaye géwél sama doom yi ñoom ñëpp moo xale yu ndaw yi naa tambaay dee la xalaas waaye nag sama doom bi. sama doom. Fatou xalaas. dañu ko bàyyi xel mi ngi ñëw. mi ngi ñëw waaw. doomu dee la xalaas Mbène Ndiaye bi man ana ana kii ñëw. yaa ko tudd tudd maa nogay dina ñëw. nee la ñuy àtte ba mooy dem wala man de casam rek a may ma yëkkati nee na suñ ko àtte ñun ñu diri ko. waaw waaw ka am fu waaw léegi nag ah, may sant yàlla daal di xale dañ lay laaj projet yi fan la toll ci yan projet nga toll instant bi waaw projet yi nag maa ngi ci liggéey bi mhm. tubaarkàlla macha allah maa ngi ci sama guddi maa ngi ci album bi sama ci suba ngeen ma fekk mhm. ne a dugal léegi nag nag parce que album bi dama bëggoon mu génn avant guddi gi mais dafay xat mais su guddi gi jeexee mhm. ma song ko génne album bi soobee dañuy dégg euh, ci site internet yi ñuy bind que ne euh, mère Ndiaye bi ak Fatou Gueye dañoo am problème. ah yëgoo ko ma ko de. Hmm. loolu kañ lañ ko bind. ah gis naa ko de. Fatou Gueye Diouf. mel loolu kañ lañ ko def. ah dégg naa ko de. ah Fatou ko war a woy ci sama guddi gi. kon kon xëy na ñi ñi ko wax dañoo am. problème mu am problème waaw. xam nga fii la lépp di leeree. gumba bu fi leeral ko rek mu waat cumbu baat buy dem ba maam bi saanu. Mhm. yu koy dënd yu koy saajol fa gàll seen meew kooku amul benn problème. kooku xale bu baax la. Mhm. mosuma am problème kooku bu may tëgg sama guddi yi sarax yi ma def yi mën ko digal. jox ma xaalis dagg contrat am yëngu demee Amérique. benn xale bu ñuy wax Maodo Gueye da koo ko Ndiaye bi fi nekk mu ne ko teral ko sama xarit la lu baax man lu ma juddee kon daal na ak Fatou Gueye Diouf. mukk waaw kay asalaamaaleykum leer na. moom lañ ma ni sëkkatal ko. leer ko lu baax bu ko bàyyi benn yoon man ngeen ma sëkkatal ko. Mm-hmm. bu ma mucc yof wala mucc mbuubaan ma maam bi saan du wax defet te amul defet te mu jëf defet yàlla bu ñu jotee dara maa moom. kooku sama xarit la. Ah, léegi Mère Ndiaye bi dama bëgg nga wayal ñu suñu TV ah ak sama technicien bu ñaawul bi sama caméraman bi di jo ama yaa ma gën xam. suñu TV ay suñu TV ay suñu TV ngi doog a ñëw. xoolal suñu TV mu yéen da ngeen tabax. français leen moom. yéen suñu TV yi jël na su ko sim te fii lay tabax. dégg te kenn du ko dindi. mu fekkee leen di. Hmm. xoolal di nga amaat sama doom jee ngi doog a bi nga yëg ah, si sa soxna di bàyyi sama doom ji suñu TV da nga àndal te ko ànd ak moom. boo waxee nu déglu la soo jëfee mu mat fekkee leen lii ah. déglu leen lii mais tii bi daal ku mu dawul yaram am saw yaram du daal man daal na sama xel dal na sama xel dal na saa xol sunu tii bii fi nekk moom laa àndal sama star cas sama star soo ko jëlee dina dem kon lii lañ leen indiloon tey ci émission bi nga xam ne moo di sama star yaakaar naa ne bi biñ leen indil mm, euh, neex na leen saf na leen muy Mère Ndiaye bi ndax Mère Ndiaye bi tëj na àddina yëngal na jamono te mi ngi waaj le 4 janvier kon yéen fans yi xaar leen ko mu ngi ñëw